Actualité sur Sénégaspora.tv Avec Sénégaspora.tv, vous avez une couverture de toute l'information à chaud, 24 heures sur 24. Politique, sport, people, société, religion, économie, environnement. Abonnez-vous vite sur notre site Teji ajumaji lañ doon amal li di tirage au sort bu 22e édition bu coupe du monde ñong ko doon amal nak fele ci Doha ci Qatar ci juroomi dëkk yi na la représenter li di continent africain yi danaka Sénégal mom mo ci am poule bu abordable mom Sénégal mu ngi loge ci poule A nara a ak Qatar Équateur ak euh, Hollande bu Van Dijk bi nga xamné moy coéquipier wu Sadio Mané fele ci Liverpool. ki gëna am tirage bu metti mën nañ wax né Cameroun la mom ci poule de la mort lañ ko dugal mu nara a ak Brésil bi nga xamné ne na 5 fois. champion du monde ak Suisse ak Serbie pour le moment nak xam ñaar ak sélection ci ak ñaar yi nga ñoo a à 7 mois de l'événement planétaire ñuy xaarandi nak barrage intercontinentaux yi ngir xam chapeau 4